fa min mustakin faqran wa min mustakin baran wa min mustakin daynan wa saa minhumu ahra fa kun daafian shakwal jamii wa hummahum bilutfin wa kun rabban raufan bina bara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalul a Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg loolu te ci ndigalul sëriñ Abul Baraka ibnu Cheikh Mamadou Fadil di jëwriñu ko Cheikh Mamadou Fadil yàlla na fi yàgg loolu te wér jëwriñam Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Mamadou Fadil ki yor kàddu kër gi di Cheikh Mamadou Fatah ibnu Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Mamadou Mourtala ibnu Cheikh ak njabaru Cheikh Mamadou Fadil gépp ñooy am mbégte mu rëy di yëgle leen daan yëgle ci waxtu waxtu wi jotee muy bisub seen sang ba seen sëriñ ba a cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu du bis bi nga xam ne ci la feeñoon jamono ci yàlla dogal mu nekk xeetlikaayu mbindeef yi nekk ku jariñ mbindeef yi ci ak dundam ba ñépp xam ko di bis boo xam ne sax dañoo baaxoo yëgle bis rek waaye saa bu weer wi duggee réew mépp nga koy waajal réew mépp nga koy bàyyi xel bis boobu nag moo jublu si di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab bi ñu nekk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent dëppook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ñu nekk euh, ci deux mille vingt moom lañuy ñuy yëgle ci teewaayu kilifa yëpp nag ci teewaayu mbokk yëpp ñu ràññi ci njabootu Cheikh Mamadou Lil ràññi ci sëti Cheikh Mamadou Lil waaye ràññ ci taalibe Cheikh Mouhamadoul Fadil yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la ko Cheikhul Khadim bàyyee woon muy jumaay Touba ba mu sotti colet ñu mën taat ñu mën caa tudd ku mel ne Serigne Thierno Diaw mbokk yi ñëpp ñëw nañ Serigne Fadil Bousso xalifa Serigne Afi Bousso mi ngi ànd ak njabootu Bousso bi ñëpp ñëw ci jataay bi Serigne Khadim Niang teewal fi Serigne Ibrahima Niang ak njabootu Afi yëpp ñoom it ñu ngi ci jataay bi. nekk noonu waa kër sëriñ Aliou Ndiaye Guédé ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi mbokk yëpp dongoy tarbiya yi doomi dongoy tarbiya yi dongoy doom yi ñëpp kon ñu ngi ci jataay bi ngir ànd ak ñun ànd ak jëwriñ yi ànd ak kilifa yi ci wàccaayu bis bu tedd bii bis bi nag kàddu yi nii la jataay bi tëddee incha allahu taala danañu njëkk jox a Cheikh Ahmadul Badawi ginnaaw bi ñu sant Cheikh Ahmadul Fadil ne moo bi ci xasida ba noppi ibnu Cheikh Ahmadul Fatah daan jox Cheikh Ahmadul Badawi ibnu Cheikh Ahmadul Fadil mi nga xam ne moo jëwriñu liggéey bi moom la Cheikh Abdoul Fatah dénk liggéey bi mu ànd ko ak mbooloo mi ñëpp bu noppee dañu jox alxaaji Ndiaye sëñ alxaaji mii toog suñu wet moom it mu wax ci wàllu programme bi Cheikh Ahmadul Badawi mooy wax ci solos bis bi ak cosaanal bis bi bu loolu jàllee nag ñu wax ñu jox sëriñ na jow mu wax ci turu mboolem dong yi jaaroon ci keppar Cheikh Ahmadul Fadil radiyallahu anhu bu noppee nag ñu daal di jox ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadul Murtada mu sànni kàddu sëñ bi daal di ñaan incha allah taala ñu ngi wax ne it waa kër soxna soxna Mariama Kunta ñoom it ñu ngi ci jotaay bi ak mbokk yi fi ñu nekk yëpp bàyyiwuñ kenn kon ñu jox sëriñ Ahmadou Rafaay yi. am nu saa moom sëñ Alhaaji Mamadou Lamine Bara mi ngi jotaay bi. sëñ Cheikh Colle mi nga xam ne mooy jër ñu liggéey bi sëñ daam Fall ak njabootu Cheikh gépp waa kër sëñ Ibrahima Bousso waaw waa kër sëñ Ibrahima Bousso ñoom it bi waaw wax na sëñ Fallou Bousso xalifa sëñ ibrahim Bousso moom mi ngi ci jotaay bi waa kër sëñ Modou Bousso Dieng e, sëriñ Abdoul Khadir di jëwriñ ay rakam waa kër sëñ Afe mi ngi ci jotaay bi kon daal bi moom macha allah wax yàlla kilifa yi ñëpp a ngi fi ñu jox Ahmadul Badawi mu jàllale ay kàddoom incha allah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala gi ñu ay kàddu yu bàyyi ko ci moom jóge ci Cheikh Mouhamadul Bachir jóge ci Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadil ca Cheikh Mouhamadul mi nga xam ne mooy xalifa mooy al xalifa am lil Muridiya am ci teew ci jataay bi ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ dëgmal si ci weer bu màgg bii nga xam ne ci lañu nekk ci pàkk bu laab bu sell bu tedd bii nga xam ne ci lañu toog di waajal bis boobu yi nga xam ne bisub jullit yëpp la muy weeru rajab rajabul fard nga xam ne lu bari ci lislaam xew-xew yu baree bari ci la xew di bis bu màgg boobu yi nga xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala rañaane woon jaamam ba sallallahu alayhi wa yóbbu ko fa ko soob wax ko fa la ko soob jox ko fa sëri ca ba ko soob mu indil ñu ko te loolu doon xissa boo xam ne alquranul karim moo ñu ko nettali ci lammi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa waxyun yuuxaa ñu amaat ci nag yeneen tawfiq muy cheikh Mouhamadin il Fadil ci la gane woon jamono mu doon bis boo xam ne jullit yëpp ko bokk àdduna bépp ko bokk lislaam bépp ko bokk waaye rawatina yoonu murit sëriñ bi baaxoo saa bu yegsee mu dajeeg njaboot gi ñu waajal bis boobu yi waaye nag woo ci mboolem jullit yi woo ci mbooleem murid yi woo ci mbooleem sénégalais yi mën nañoo wax sax woo ci mbooleem bindeef yi ndax Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom lañ ci màggal ko ci fàttaliku jikkoom noonu yi la woon dafa doonoon koo xam ne dafa jaboote woon ñëpp doon koo xam ne dafa toogoon toogaayu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ne ko ci Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom léppam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag mu wax ne dafa seey rek ci biir sëriñ bi du doom. ju bëgg a doon baayam du taalibe bu bëgg ñu seexal ko wax ne dafa bëgg a seey ci biir sëriñ bi rek fu mu jëm jëme ko fa loolu nag waxtu wu ne muy gën a firndewu bokk na ci bisam bii nga xam ne dañuy wax ne sunu borom daf ko ko fayee muy bisum màggal gi nga xam ne moo ko wooteeloon Cheikhul Khadim radiyallahu anhu barki démb rek bi ñu defub jataay di waajal màggal gi ñi nga xam ne ñoo yor waajtaay dañoo wax ne bii moom mooy doon seenum nattu ci màggal gu mag gi gis nañ ne daanaka buñ jàllee dañuy yokkaat tuuti rek ci seen wàccaayu màggal gu mag gi loolu nag doon loo xam ne kon day firndeel rek ne na mu seey woon ci sëriñ bi sëriñ bi euh, yóbbaale na ko foofu te nangu na ko ñuy sëriñ bi nag di ko fàttali mboolem jullit yi ni ma ko waxee léegi waaye di fàttali itam Cheikh Mamadul Fadil bi mu njëkkee wooteel Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu màggal gi waxtaan woowee nga xam ne waxoon na ko ci man koy tudde xitaab wax ni ñuy màggale mooy jàng alquranul karim di def al istixfaar di def salaatu ala nabi di jàng xasaayidi Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu nga xam ne yi ma wax yooyu yëpp a ngi ci biir xasaayidi te sëriñ bi defee na ko ci defin woo xam ne ku ne xam na ne keneen lottu na ci te lu mu ci def rek sunu borom nangul na ko ko loolu bokk nag sëriñ bi waxoon ne nañu jàng xasaayid waaye di siyaarante ñi gëjoon a gise gise di siyaare way dawlu yi di leen ñaanal waaye di siyaare ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu noonu la waxoon kon ñu ngi koy fàttali ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal si sëriñ bi wax ne nag na ñëpp ñëw képp koo xam ne daa nga ñëw na nga jéem a ñëw te xam ne njariñ rek moo fi ne taraanga rek moo fi ne ñaan gu nangu rek moo fi ne te sëriñ bi sunu borom nangul na Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu nangul na Cheikh Mahamadul Fadil kon jëpp yitte joo xam ne nit am na ko lu mu rëy rëy ci moom wala lu mu niru niru lu jafe-jafe na ñëw fii fas ko ci barkeb Cheikh Mahamadul Fadil yaakaar ko ci borom bi subhaanahu wa taala barkeb Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu te am yaakaar ci ne yaqin ne sunu borom dana ko defal kon mas na dégg sunu mbokk mu wax ne kuy ñëw na nga indi say bagaan te xam ne bagaan gu fi nit indi sunu borom dana la ko duyal ci barkeb Cheikhuna al Xadim ci barkeb Cheikh Ahmadul Fadil ñu ñaan ñu fekk ko ci jàmm ak salaam te ñëw ci jàmm dellusi ci jàmm sëriñ bi nag di soññee bu baax a baax ci njàngum alxuraanul karim mi waxee tudd naa ko léegi ci noonu ko Cheikh Ahmadul Fadil waxee woon ci ay limi alxuraanul karim kenn xamut nu mu toll am na ñoo xam ne ba weer wi tàmbalee la ñu tàmbali ñi nga xam ne sax xëy na lott nañ ko jàngal seen bopp ñu wut ay nit teral leen sant leen ñu jàng kaamil yooyu ñu yéen a ñu jox addi ñu def ko addi Cheikh Modou Fadil def ko addi Cheikhul Khadim ñaanal ci seen bopp ñaanal ci seenu njaboot ndax benn aaya alquran wala benn fatiha wala benn eh, ixlaas wala benn ayatul kursi yi jullit yëpp xaj nañ ci rawatina ay kaamil waaye kaamil yi moom liñ ci jàng kenn kenn xamu nu mu toll waaye nañ ko yokk te sellal ko te def ko addee sëriñ bi kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di seenu ñëpp di ñaan ñëw ci jàmm ak salaam dellu si jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ginnaaw bi nu ne ci turu suñu sëriñ su tedd yi suñu sang si nu nekkal di fàttali bis bu tedd bi nga xam ne kenn du ko fàtte muy bisu kasu rajab di bisu Cheikh Mamadou Fadal ñu dellu siwaat tey jii di ñaanaat yàlla nu jàgg ko fee teewee ci barke wala ñu fàllu bëgg waxtaan nag lenn ci li nga xam ne nii lañ bëgg a tëralee programme mu màggal gi di ci tàmbalee mooy njëkk ci rajabiyaat yi nga xam ne sëti Cheikh Mamadou Fadil yi ànd ko ak comité d'organisation bi at mu jot daanañ ko def di ko def ba def ko ci kër yu bëri ci këri sëriñ si ren ji it ñu jàppaat ko fa yéene koo defaat incha allah muy le huit ñu am benn daje bu mag boo xam ne danañ ko def mooy sëti Cheikh Modou Fadil yi ànd ak comité d' organisation bi ñu war a def benn daje le huit ca kër sëñ Njóogu Mbàkke moom lañ ko jeglee reen gannaaw bi it am na beneen daje bu mag bu war a def ca dakaar muy le once boo xam ne nag mësta am ci màggal gi waaye màggal gi ni mu def ak dayoom di gën a yaatu di gën moo tax ñu yaatal ko reen ba yóbbu ko Padois ñu fa seen faa def le onze ab daje bu mag fas yéene nag ñaan ñëpp koo xam ne dëkk nga ndakaaru ku dëkk Touba ca mën caa teew rek nga teewaat ca incha allah daje bu am solo la doon suñ ci fa jógee am na it exposition boo xam ne at mu jot ñu daan ko def ngi di ci wane si moom Mamadou faadal ay mbirum ak i jaar-jaaram ak ñi mu bokkaloon jamono loolu itam exposition bi nañ ko daan defee incha allah fas yéene nañ koo def ren ñi nga war a ubbi exposition bi le 13 ci buntu kër Sëñ Fallou loolu itam ñi ngi ñaan ñëpp ñu teew ci am na it lu ñu ci war a euh, def muy am téere boo xam ne bind nañ ko ci sëriñ bi ak téere boo xam ne sëriñ Mamour Mbacke du doon na ko liggéey ci sëriñ bi yooyu yëpp incha allah fas yéene nañ ko ca wane loolu lépp ñu ngi ñaan kon la treize képp koo man nga ñëw ci ubbite exposition bi boobu gën ko defee tamit am na conférence bi nga xam ne moom lañ daan def daan ko jagleel sëriñ si di ko tuddee sëriñ si muy dox di dox ba si ren ci soxna may ma may Maymunatu Mbacke bintu Xaadimu Rasul ñu gën koo xam ci soxna may mu mag moom incha allah moom itam le 15 la ñu ko bi di ko yëgal bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ñu ngi koy defee fii ci buntu kër Serigne Fallou ginnaaw loolu nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom la sët yi daan def ànd ko ak bi noonu lañ ko fas yéene defewaat ren ginnaaw bu bopp ñun waa turandooy Serigne yi nga xam ne ñun mën na li ma koy wax at mu ne màggal gi moom sunu màggal la képp ku ñëw rek dañ jàppale waaye ñun noo maam màggal gi ñun turandooy Serigne Fallou yi kon nag nañ waajaat fu turandoo nekk la nga daan indi nga di ko indi ña daan indi matt bi di jóge Tamba muy fàllu Tambaay seenu matt ñu ngi koy xaaraat fàllu yi daan jóge Jurbel di indi dab yi loolu lépp ñu ngi koy xaar ak fu fàllu mën a mës a mën a jóge rek la nga daan indi rek ñu ngi waajaat nga indiwaat ko na nga ko daan indi ginnaaw loolu itam ñu ngi soññ itam sëriñ bi mi nga xam le ne ci euh, Europe xam nga màggal gi moom ren dafa dem ba extérieur fenn fu nekk fa la daan dem ren rawatina ren sëriñ Abo nag wax na ne képp kilifa koo xam ne yabaloon na li ci dëkk ma nga lay feddiliwaat ni dëkk boobee la la yabalaat na fa dellu ñoo fa nekk nañ xam ne sëriñ bi moo ko fa yabal ren ji nag am na ku ci dolliku benn réew mu ci dolliku muy Canada Canada itam ku ñuy wax sëriñ Fadilu Mbàkke mu sëriñ aboo incha allah dana fa màggal màggal gi moom xam képp ci euh, àddina bi muy Afrique muy Asie muy Europe fépp koo xam ne kilifa daan na fa nekk sëriñ bi nee na ko fa daan nekk mi ngi la koy fàttaliwaat nga nim taxawaat nga ko taxawee ñi nga xam ne mooy xam ne ñooy indi nag soppee sëriñ Fall wi di andi addiya yi ñoom itam ñu ngi leen séntuwaat nañ leen daan séntoo sëriñ bi incha allah fan yu néew ubbi dana ubbi suubbee ñu ñëw nañu daan ñëw indi saare yi ren nag dañ daan laaj ñu indi ay dab di indi ay cin ba lépp wala alhamdulilah lépp bëri na waaye ren nag dañu gis ne dab yi saaw na ñu ngi ñaanal daayira buy ñëw rek boo mënee indi bool Ah, bool yi nit ñi ngi la koy ñaan nga indiwaat ko ngir gën a mbokkaat bool bi loolu nag li ko waral mooy fii day kër goo xam ne fu waaye soxlaa ci dëkk bi ci bëgg gi dàpp wala nga bëgg cin wala dara sa xel du xalaat ku may kër sëñ Fallou moo tax ñuy laaj lii ñu ngi ñaanaat nag ñëpp indiwaat di ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm njàngom alxaraan mi ña ko daan yor ñu ngi koy yor programme boobu benn sens wu ci incha allah sëñ Fallou Diaw moo ko yoroon waaye rakkam di lépp moom it lañ ko dénkaat mbaar moom mu ànd ko ñu ko doon àndal di fonse ak ñi nga xam ne ñoo jànkat yi alxuraan yi kuréel yi ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di gën a soññaat ak borom daayira yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alamin ñoo ngi nuyu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yëpp di jiital nag ci nuyoo bi sunu sang yi fi toog muy Cheikh Abdoul Fattah ak mboolem ay rakkam yëpp ak mboolem ak njabootam yëpp ak mboolem mbokk yi fi teew yëpp mu ne ñun nag suñuy woote duñ ko aj rek ci dongoy tarbiya yi ndax bés bu ne day am maqaama maqaama bis bii nag mooy maqaama moom moom maam suñu maam suñu borom woote woote mooy maqaamam moom suñ borom woote la woon suñ maam Ibrahim nee na ci woote boobee. da ko waxoon ko waasin fi naas bil ajiyaatu ko rijaalan wa ala kulli daamirin dana ko woon wooteel boo ko defee li ñëpp danañ wuy si jóge ci gox yu wuute ñii di dox ñii di war euh, wut si wuy si la ci woote bi nga xam ne ci nga nekk woote ngir ñu mën a euh, teewe euh, fekkee li nga xam ne seen njëriñ képp lay doon mu ne njëriñ loolu nag moom la nekkaat ci bis bii ci la ko aj nee na njëriñ yooyu ci la ko aj ndax kii nga xam ne moom moom bis bi dafa nekkaloon yàlla ci mbindeef yëpp nee na suñu boroom kat ku yërëm mbindeef yëpp la nit ñëpp génne wu ci woon kenn loolu la suñu maam Ibrahima doon doxe suñu sëriñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul radiyallaahu anhu moom la doon yaa maalikal mulki loolu moo waral mu ne yaa maalikal mulki yaman jalla an xawalin mu ne su ñoon yow suñu borom yow mi nga xam ne moom kenn doxul sa digganteeg lenn loo nar a def li ñu lay sàkku ci la ko ñaan daal mooy nga yërëm bindeef yëpp ca bu ci kenn des sëriñ Fadil lu muy li nga xamoon ci moom ak laabiram ak laabiram ak njariñam ak njariñam mbindeef yëpp la ko yamale woon ku sori ak ku jege xamee ku woon ab julit ak ku yëfar mbindeef yëpp ay mbindeef lañu. ndax mbindeef yëpp mbindeef yàlla lañu. loolu taxoon na. loolu taxoon na. bisam bii. bisam bii. ñu aj ko ci bisub suñu maam Ibrahima boobee. di ko ñaanal bis bii nga xam ne moo ko indi Touba. muy bisu màggal gi nga xam ne moo ko indi fii Touba. li tax mu ñaanal ko. day moom rek muy moom. bis bii dana dem ba kenn du ko xàmmeeg bis boobee. du yàgg sax dara. ndax moom léppam da koo bàyyi woon ci biir sëriñ bi sëriñ bi jël léppam boole ko ci moom moo tax képp koo xam ne kii bëgg ngaa jëriñu addina ak alaxira bis bii foo mën a nekk ak fu mu la mën di fekk da nga bàyyi loo nekkoon te ñëw wuy si ndax njëriñal addina ak alaxira rek la moo fi bàyyi nit ñëpp nag te moo nekk ci bis bii fi ñëw ku fi ñëw da nga jëriñu adduna ak àlaxira koo xam ne kii nag jëriñ loola soxal na la na nga ñëw bàyyiwuñu kenn nit ak ginne ak malaayik ci ñëppay ñëw itam ndax bis bi xaymay ñaari bis yi rek la bokkal te dana wóor mbindeef mboo wóor mbindeef yëpp danañ dem ba bisum Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bi mu indi woon Touba kenn du ko ah, mën a xàmmee bisu Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu bi loolu dootu yàgg dara incha allah yàlla nañ ko fekkee ñu ñëpp yàlla nañ ko yàgg def itam te suñu borom nangu lépp darge Cheikh Amadou Fadal ñu ngi sant ñëpp ñu gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Mourtada Mbacke ibnu Cheikh Amadou Fadal nee na aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb xaadimal Moustapha radiyallahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa seen mbokkum taalibe moo leen di nuyu. ci turu Cheikh Serigne Abou mi toogal Cheikh Amadou Fadal. yàlla na fi yàgg lool te ak njabootu Serigne Touba gépp ak Serigne Bachirou Mbacké im Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Abou. ak Cheikh Abdoul Fatah Mbacké mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi. nga ne màggal gi mooy jëwriñu liggéey bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax neen nuyoo bi ñëpp nag ñu ngi ko def jiit ñu ngi ci jiital sëriñ Muntaxa ñu ngi toogal Cheikhul Khadim yàlla na fi yàgg lool te wér ci barke Cheikhul Khadim radiyallahu anhu li mu bëgg liggéeyal sëriñ Touba lépp mu liggéey ko ñu ànd ko ak moom ci barke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Fatah sëñ bi nee na ñu ngi lay siyaar bu baax ak njaboot gi fi nekk yëpp sa doomi sëriñ yaa ngi nii sa sët yi jarbaat yi sa mbokk yëpp ñu ngi ni toog ni ko alaaj Njaay Cheikh ni waxee léegi rek jëruñu di ko baamawaat bis bi rek la ñuy fàttaliwaat te xam nañ ne kenn fàttewu ko ndax rajab sa bis bu duggee képp ku jullit sa xel dana dem ci rañaanu yonent bi sallallahu alayhi boo dee am murit sa xel dana dem ñu seenu yàlla ñu yàlla dimbale ci barke Sëriñ Xadim radiyallahu ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin liñ ci bëgg a wax nag moo di njàng alxuraan mi rek lu mu gën a bari rek moo gën ak xaside yi lu mu gën a bari rek moo gën ak salaatu ala nabi naka naka noonu kon nag bismillah mi ngi ñëw ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn njabootu sëñ Tuubaa gépp taalibe bokk yëpp Sénégal gépp lañ woo bu kenn des ñu ñëw bokk ak ñun bis bi ndax bisu mbégte la bisu yiw la bisu barke la ñoo ngi ñaan ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm di ñaan chauffeur yi nañ dox ndànk te yoon yi bañ yàkkamti ndax yàkkamti gi jëru ko ginnaaw fi nga jëm soriwut da ngay dox ndànk ak ak jàmm jugaat fi jàmm delluwaat ak jàmm ci barke borom bis bi ñoo ñaan autorité yi ñi nga xam ne ñooy màggat si jóge ci réew yu jege yi muy duwaañ yi dañuy dimbale bokk yi ñëw ndax màggal gi rek moo leen indi ku am da nga looy waajal bëgg koo barkeelu ci bis bi kon nañ leen yombalal seenu ñëw ñu ñëw ci jàmm ñoo ngi masaw itam marché bii nga xam ne dafa lakk bu yàggul ñu ngi koy ñu ngi masawu mboolem ko ci am dara ñëpp di ñaan suñu borom mi dogal loolu mu dogalaat ñu am xéewal yu bare bare ba fàtte ko ci barke Sëriñ Tuubaa radiyallaahu ndax suñu borom mën na ko waaye marché bi ni mel ñaan ko nangu rek la ñaan ko nangu rek moo tax li mel nii mel. ndax Cheikh Mamadou Fadil Mbacke am na ku ne ma bañ ko ubbee bis bu àjjuma ku ñu wax Modou Gueye Bousse dafa reen aw nag àjjuma jooju mu di ko jaay gaaw dibeer altine ba jeexul mu ñëw ne sëñ bi man ni damaa rayoon aw nag ci ubbite gi ba léegi jeexut sëñ Fall ne ko tibal suuf indi mu ñaanal ko ne ko foo bëgg marché bi àgg fa rek. suufa suuf sa loolu nag moo waral màgg marché bi barkeel ni mel kon nag bu li fi xew yàlla bu mu fi amati ci barke Sëñ Fall ci barke Sëñ Touba ñu ngi koy ñaan li ñu dolli ko mooy ñoo ngi koy yëgal président de la république mi nga xam ne mooy boppu réew mi da ngay képp ku mu bokkal gouvernement bi di di ko yëgal képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci barab ngir bëgg réew mi jëm kanam ñi ngi lay ñi ngi lay woo la ko yëgal. sëriñ bi ne ñu ngi ciy woo mboolem waa kër maam Maharam ñëpp bàyyiwuñu kenn waa kër maam Mor Anta Sali rawat na ci li ko dara sëriñ maam Mor Jaara ba ci sëriñ Masamba bàyyiwuñu kenn njabootu Cheikh Khadim gépp li ko dara Cheikh Moustapha al Karim ba ci Cheikh Modou Mourtada li ko dara soxna Fadja ba ci soxna Maymuna Mbàkke bàyyiwuñ kenn sëriñ bi nee mi ngi woo mboolem ñi yëngu ci réew mi di opposition bi ak société civile bi ak képp ku yëngu ci réew mi rek ngir lu jëmale réew mi kanam ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke kat nee woon na man maay Sénégal moo tax kon ñëpp la woo bàyyiwut kenn. ñu ñëw ak jàmm delluwaat ak jàmm. ci barke Cheikh Amadou Fadil loolu daal lañ amoon ci li ñuy wax ndax li li ñu war a wax lépp mbokk yi wax nañ ko dañ ma doon mottali rek kon ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barke Cheikh Amadou Fadil suñu borom def ci réew mi jàmm tàppi xol yi xol yi ànd ñu ànd liggéey Sénégal ndax réew mi ñoo ko bokk te mënuñ koo séddoo loo bokk ci mënoo koo séddoo da koy bokk te rafetal ko rek ñu ngi fàttali itam. bi bisu alxaaji Mamadou Amin Baara Mbàkke mu Cheikh Abdou moom moom dafa seey ci Cheikh Abdou Fadal rek moo tax màggalam gi di màgg di màggalu suñu fàllu rek ñu benn rek nee ñu ngi fàttali mbokk yëpp ñi ñi ngi siyaare sëñ sëñ Moustapha ne nee nañ ñëpp dem siyaare gi Cheikh Moustapha Mbàkke moom sëñ alxaaji Baara ak njabootam gi yëpp rek kon nañu leen jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen baal maa ko baax jërëjëf Mbàkke kon nag mbokk yi loolu mooy woote bi nga xam ne moo jóge fii ci kër Cheikh Mouhamadoul Fadel ñu ngi fàttaliwaat bu baax a baax mbokki mécaniciens yi nga xam ne daan nañ taxaw ci yoon yi di jàppale mboolem ñuy ñëw te di ko def ngir jëm Cheikh Mouhamadoul Fadel ñu ngi leen ko fàttali bu baax docteur yi noonu képp koo xam ne wan ngaa taxaw ci wet gépp nga mën a taxawelal nga xam ne lu ci waay def sa bopp nga koy defal kon ñu ngi fàttaliwaat bis bi mu nekk set février bi ñu jëm incha allah di àjjuma eh, dëppoo ñaar fukk ci weeru rajab lu ko jiitu nag sëriñ Alhaaji Mahamadul Amin Baara bisam bi mi ngi nekk fukki fan ak juróom-benn di le 16 février di ci alxames yi incha allah taala ñu taqaloo ni ko sëñ bi waxee rek ñoo ngi ko fàtte Touba Aliya ñoo ngi koy fàttali ñëpp kon ñu jox sëriñ bi mu ñaan.